toujours dans votre acte du jour ginnaaw bi république du Sénégal institution institution am état de droit des filles, dafa am de image boo xamante ni yaakaar naa ni rafetul ñu koy gis ci Sénégal ndaxte Sénégal régime présidentiel la am su ñu nee régime présidentiel benn nit la jël fal ko au suffrage universel direct benn nit boobu moo taxawaat ci kanamu constitution euh, di Sénégal si kanamu conseil constitutionnel ci kanamu askanu Sénégal yëpp neen dinaa respecté loo lii nga xamante ne mooy institution bi respecté loo constitution bi sénégalais ñu sudee ko. le chef suprême de la nation garant de notre constitution kon a naa une image bii laa bëgg ñu seetaan ko ci bureau qui nga xamante ministre de la femme di Maimouna Dièye ndax image bii rafet na du ñu ce ko ci Sénégal ana société civile ana ñi nga xamante ne défendre l'état di état de droit à ana loi droit de l'homme nañu seetaani image bi dellu <laughs>

président ak premier ministre ñom ñaar ñëpp seen photo nek ci ay institution de la république du Sénégal li nga xamanteni ni ko mom may mëna jé nak amna sañ-sañ ci bureau personnel am ci kërëm mu def fa photo qui connaît. neex mais fi mu tok tay momuko Pastef Sénégal moko mom kon yaakaar naa ni état de droit waru ko permettre muy jël ñaari photo yu diko fa tek parce que tay li mo raw offense au chef de l'État. Li mo raw lu ki nga xamanteni amé Suzanne Camara wax nako ndaxte offense au chef de l'État, wessuul Bassirou dit président de la république ñu bëgg ko au même titre que son premier ministre alors que le premier ministre Ken wooteelu au suffrage universel direct a 54,28%, beaucoup virgule vingt huit bokkul sax candidat yi a un ci place au premier ministre donc je crois que la société civile li ñu war a critiquer ñi nekk ci plateau yi journalistes yi chroniqueurs yi lii la ñu war a njëkk a xeex ci institution Macky Sall fekk fa photo Macky Sall fekk fa photo Amadou je crois que dinañ dégg seen baat en tout cas ñi ngi poser question en état de droit est ce que l'État est du est ce que l'État est du au chef de l'État jël ñaari photo teg ko ci ay institutions yo xamanteni république du Sénégal moko mom je crois que ñi ngi la république ak le parti Pastef donc c'est quelque chose que xamanteni sénégalais ñi ngi attirer sen attention institution yi nga xamanteni photo président mu fa ak photo premier ministre photo premier ministre waru fa constitution bi lu mu wax photo président kese mo fa nek parce que régime présidentiel la ñu am nekkuñu nak Angleterre bi nga xamantene dañu am président buy régner premier ministre buy gouverner loolu su naré am nañu voté référendum bañu ñu ko mais tant que loolu amul ñu ngi violer li nga xamantene constitution du Sénégal alors que je crois que su avons offense au chef de l'État ki ñëk offense chef de l'État qui ki jël photo premier ministre dans di koy ci en même temps photo président de la République ci biir institution bi nga xamantene sénégalais yi mom rax ci doli kiko def di ministre de la femme di Maïmouna